waa léegi bon vraiment match bi on va dire c'est un sans faute ah match sans faute la parce que euh, bien vrai que euh, euh, gis nañ ne ñoo leen ëpp qualité vraiment sur le plan individuel mais sur le plan collectif tamit gis nañ ne équipe yi ñoo leen dominer vraiment sur tous les plans physiquement techniquement tactiquement mais nag bon c'est normal ah euh, Sénégal euh, Congo lay footballal donc genre équipe yi bu ñu dajee ñoom il faut que ñu ñu wan leen ñoo leen mën fuuf. donc ñu mën leen jox benn chance donc loolu la équipe bi di déroulé fu ñu toll vraiment premier mi-temps bu bu rafet macha allah avec des buts et des occasions loolu lu am solo la pour préparation yi nga xamante ne mooy année di ñëw. ki nga xam ne mooy Sadio dañ doon wax ndax dina jouer wala du jouer ndax yéex a ñëw bi mu ñëw yow nan ko gisee ci terrain bi. non Sadio compétiteur la c'est un compétiteur c'est un garçon sérieux donc euh, vraiment euh, mi ngi def le tout pour vraiment nekk au sommet donc ci wàllu. football bi et puis en dehors euh, boo ko gisee tamit dangay xam ne kii joueur buy récupérer la donc euh, loolu yëpp dafay bokk ci ci li nga xamante ne mooy professionnalisme bi ñu koy laaj parce que ñëpp xam nañ ne tey aujourd'hui Afrique sas na ko donc euh, ci wàllu kàngam yi nga xamante ne moom mooy ñoom ñooy nekk ci àdduna bi ci football donc tey mi ngi koy représenter dignement donc man tey awma benn doute ci lu mu waroon a jouer tey parce que xam naa ne il récupère vite un joueur qui récupère vite c'est un donc donc tey il fait beaucoup bien ci accélération yeeg ci vraiment ci ci ci technique bi muy indi ci ci football bi ak vitesse bi. Euh, prestation xale yu ndaw yi soog ñëw ñi ñi ay ñoom Racine Coly nan nga leen gisee si terrain. lu am solo la donc euh, match yi nga leen di intégré petit à petit ñu dugg ci parce que ñun ñëpp ci jaar nañ ci ba ñu ñëw équipe nationale dañu commencé duñ dugal par nànk-nànk euh, ñuy intégré ba tey ñu jëm def suñu carrière donc tey baax na si tamit nga gesul di dugal booy par nànk-nànk parce que c'est l'avenir. parce que football bi ñi nekkoon euh, quatre vingt quinze deux mille quinze ah deux mille dix sept deux mille dix neuf tamit foog ñu ñu bàyyi place bi tuuti xale yi nga xam ne mosuñu mosuñu am ay sélection ñu dugg nank nànk euh, ñu leen préparer pour nga xamante ni échéance yi ñëw waaye mille vingt et un ak deux mille ñoom ñu ngi imposé wu. am nañ seen place fii parce que bu ñu leen woowee rek ça veut dire que bàyyi nañ ñeneen jël leen. donc euh, ñëpp xam nañ ne am nañ qualité donc ils l'ont montré aujourd'hui en premier mi j'espère que dina continuer bu baax ci deuxième mi-temps